بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى خير قديمه عبد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bokki ñi topi ci seen site alxadimiya tv ñi ngi leen di nuyuwaat nuyoo l'islam bu sell bu màgg boobu fas yéene dellusiwaat ci seen émission yi daqaa'iqul ulum ñu nekkoon ci wàllu azaga ak li nga xam ne ci aju lépp tënku ci njàngale sariya niñ ko waxee nag moom dafay loo xam ni yitteel na lool waaye jamono bu nekk dafay yitteel li ko waral mooy moom tënku wën ci événement boo xam ni dañ naa saa bu ci ñëwee génn asaka daf cee war waaye dañ naa moom ci at la tënku nga xam ni tey tey tey asaka mën na laa war ndax dangaa yor alal joo xam ni denc ko ko bis ni tey daaw moo xam da nga tënku ci weeru français wala nga tënku ci weeru olof lu mu ci mën a doon saa bis bi delsee saa bu bis bi ñëwee dañuy dañuy dañuy dañuy taamu nga génneel ko asaka am na ñoo xam nag dañuy xaar événement lu mel ni ki koor lañu tàmm ci di ci génn asaka wala lu mel ni ki tamxarit xarit waaye loolu nag léeg-léeg erreur bi ci mën a am mooy man nga am alal ba mu ëpp at te loolu ci ak càggante lañ koy jàppe mooy alal moom li ci gën bu ci asaka waree bu at mi matee rek nga bañ a yeexe dara ci génne ko xanaa lu dul bokk bu fekke koor la koy gennel yorna alal jo xamni yorna ko koor ba genen koor wat waye ginnaw bi dafa am alal jo xamni nak nag at lu melni ko xam da fay jaay yu mel non nga xamni yorna na marchandise mo xamni lim ko jaay mat na at waaye nag am lu ci doli ko lo xamni ne at legi mani limat at na ko gennel limatagul at nga xam ne yor lo xamni matagul at nga ne mom itam na ko gennel min babil isti'jal wala min baabi istijaali ixraaji zaka teg ko ci buntu gaawe génne asaka loo tax ci gaawe googu ak jeexe googu léeg-léeg ay nattu mën na cee am ci bu fekkee at ma dafa mat nga xam ne ba at ma matee rek ci nga génn li nga war a génne asaka dal koy ber dal koy tege en place lu mel ni ma ne fukki fan de moo tee ma génne asaka kon naa ko teel a génne léegi bu ko defee boobu at mi matee ma dal di koy joxe daggan na nag nga teel koo joxe lu mel ni fukki fan moo ci des am na sax ñu wax lu mat weer nga xam ne moo ci des bu ko defee nga joxe ko ndax fukki weer ak ñaar mooy at mi waaye nga am fukki weer ak benn min baa bi isti'jaali ixraaji zakat ñi nga xam ne dañoo wax ne dagan na nga gaawi génn asaka boobaa loolu dana dagan bu fekkee lu mat weer moo ci des ci li ñenn ñu wax ni mooy li gën a néew am ñu wax ne itam lu mat fukki fan jàpp fukki fan ak juróom bu fekkee ci ngir mi la boo fekkee nag avant at mi mat nga xam ne yow da nga koo teel a génne asaka ji kat naa ko génne tegu ko à côté bu ko defee man koo joxe far yàlla dogal ba nga ko tegee place nag loola réer waaye nag tëccaa gi ne sag sàggan ndax fa nga ko teg wóolu nga ko wala ba teg nga ko ci loxo yi koo xam ni ku ñu wóor ku ñu wóolu la far alal ji réer boobaa dañuy wax ni kon alal jooje doo ko war lu maam doo ko damaan boobaa daf lay dafa lay wàcc ndax li waroon def nga ko ba noppi amma bu fekkee jamono ja nga ko waroon a génnee dafa weesu nag nga xam ne at mi teg na fan wala ñaari fan wala boog lu mat weer nga doog koo génne boo ko tegee en place donte nga xam ne réer na itam dootee da koy génn waat nga joxe ko loolu mooy li nga xam dañuy wax ni donte jëmme alal ji xam ne moo ko jur nga xam ne ci nga génnee asaka sax alal ji réer na du tey itam li nga xam da nga ko waroon a da nga koo génne asaka ba noppi ngir joxe ko loolu danga nga koy jox ñi nga xam ne ñooy seeni boroom ndax foofu it li fi xaw a sew tuuti te mat ràññee mooy dañoo wuute ci yéenay asaka yéenay joxe asaka ndax ba ngay génne seen wàll booba nga koy yéene wala ba ba nga koy jox ka nga xam ni moo ko moom booba nga yéene joxe asaka ñenn ji dañoo wax ne te mooy li gën a siiw itam waxtu ba nga koy génne nga yéene def asaka mooy loo xam ne yàlla da ko waral ci yow. bu fekkee xas nga ko yéene nag ba nga xam ne moom wàllu ñam war a dem ci ñoom la ba noppi nag kon loolu moo tax yow sa yoon niwatu ci comme que génne nga ko te defi yéene yi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoom la ko yàlla waral ci ñoom ndax àq yàlla la ba nga xasee yéene loola rek moo tax loolu moom da koy joxe. loo tax ñu wax ne donte nga xam ne alal ja nga ko génnee dafa réer itam dara desu ca nga xam ne yoroo dara teewul lii moom ginnaaw xas nga ko yéene jox ñi nga xam ne ñoo ñàkk boobaa seenub cër la ba noppi amatoo ci benn sañ-sañ. kon loolu moo tax li nga xam ne da nga koy génne ber ko kon ñaari anam moo ci am bu fekkee da nga koy génne lu lu jiitu at ma wala boog ca ba at ma matee bu réeree dañ naa kon dara néewu ca bu fekkee nag ba nga koy génne daa fekk at ma boobaa dañuy jàpp ne ak càggante la moo tax loolu donte nga xam dafa réer itam da nga koy génnewaat wala donte nga xam ne cosaan la na itam boobaa da nga koy génne da nga koy nga joxe ko am na ñoo xam dañoo wax nag yéene asaka yaa ngi koy def ca ba nga koy jox ka nga xam ne moo ko yeyoo jarul nanga naa ko lii alali asaka la waaye danga ko koy jox rek te fas yéene def lu yàlla farataal xam ne ak xam la moom jarul nga koy bu fekkee nag da nga cee yéene naa ko def ngir li ma ko yàlla sant naa ko def ngir farata naa ko def ngir li nga xam ne ci e, ponki lislaam la bokk boo ci yéenee lool rek boobaa mu day mooy fa yéenee def farata joo xam ne yàlla moo ko gàll ci saw loos bu ko defee ka nga xam ne moom nga koy jox moom jiirul nga koy leeral naa ko lii kat alali asaka la te bu fekkee mbokk la itam moo gën bu fekkee dafay mbokk nekk ko ñàkk itam boobaa occasion la li wax naa dafa mel ni ki picc la moo xam ne da dafa mel ni ñaari picc yoo xam ne da nga koy jëm ci wenn saan ndax bu fekkee mbokk nga ko jox dañuy wax ne boobaa loolu yéene waale jokk mbokk la ndax jokk mbokk da cee bokk itam ngay jëriñ sa mbokk ci li nga xam ne yàgg ko tane te ba yàlla di wax itam na ngeen joxe boobaa da cay jiitaloon mbokk wa aati sal qurba xaqahu wal miskina wabna sabil wala tubazir tabzira ci soo mbokk la wax ba noppi doog a indi eh, doog indi al miskin ak ibnu sabil ñi nga xam dañ leen war a jox asaka waaye boobu da cay jiital mbokk moo tax nag bu ñuy joxe kon ca ñi nga xam ne ñàkk nañ boobaa mbokk lañ cay taamu ngir nga mën caa jokkaale ak mbokk kon bu ko defee bindub tay bi mënees na koo yemanil foofu saa bu ñëwaatee indi li nga xam ne mooy ci topp ci ay jàngat ak sew-sew yi nga xam ni aju na ci wàllu alal ba tey ak anam giñ ko war a génnee واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته